بقرب رفين عبادنا رجائي وغوثي إليه وسيلتي الحمد لله الذي qatratun min bahri juudihi tamla'ul arda rayya wa nadratun biayni rahmatihi tajcalul kaafira waliya wassalaatu wassalaamu ala ayni rahmati rabbaniya wa ala alihi xaqa wa miqdaarihi alazim bokki jullit yi fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu ñépp di ziyaara ñépp ci bés bi ak ci waxtu wi ak ci barab bi di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole nangul jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi sunu sang ñun ñépp fa tabaarakallaahu bi nu may occasion bi mu di Cherif Ibrahima Haydara Tijani ñaanal ko yàlla wér ak wérle dund ak dundule mucc ak muccule ndax sëñ Cheikh nee boo dundee te dundule woo dundagoo waaw ku dund boo sañoon bokk dund nga ak sa njaboot nee na boo wéree te wérle wéragoo boo muccee te muccule woo muccagoo kon nag yàlla na dund dundule wér wérle mucc muccule yàlla yaatal ko ba ñi fi teew ñépp yàlla boole leen ci ah li ñu ko waroon a gërëmee dañ ko koy ñaanale moom Chérif ndax Serigne Cheikh day wax ni nit ku ko waxal la mu baax la yépp ci benn jotaay lu ko dal ca at ma muccoo ci gisee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi di wax ni bu ñu lay tàmbal di tagg rekk dawal xul nga sol sa dàll daw de déedéet allahumma ij'alni fawqa ma yadunnuun waghfir lii mimma la ya'lamuun wala tu'aaxidni bima yaquluun lu tax tagg day damm cër day gàllankoor nit ndax yàlla teel ko wax yonent bi ñu ko boroom gémmiñ yu rëy yi bu leen topp waaw wa shuaraau yatbaauhum alxawuun alam tara annahum fi kulli waadin yahimuun wa annahum ma la yafaaluun te bu demee ba jamono yàqu ba ku lay tagg ku ne 1000 francs wala 5000 bi nga koy jox tax mu lay tagg li lay wan ni 1000 francs bee tax boo ko joxee mu ni pat booy wax mu rocceeku ndànk génn seeti feneen fu duun arab ba nag dañ ko laaj kan mooy sa mbokk mu ni mooy ki nga xam ni suma ma jusul balay am jàmm laaj ba xam mbaa jàmm ma dal ñu ni ko ak ban mu ni mooy koo xam ni lu war a diis ci man moo ma koy yenul man ma noppalu moom mu sonn ñu ni ko ak lan mu ni fu mu fekk sama manqué manqué mottali ko ba noppi féetale ma ko ñu ni man a fekk moom moo ko mottali hmm? waaw ñu ni ko ak ban mu ni fu ma ko gisee rek mu fàttali ma yàlla sama xel yépp sama yitte yépp dellu ci yàlla ñu ni ko waaw loo koy faye yow mu ni bàyyi ba mu lëndëm ba kenn rekk koy dégg déey ndax koo xam ni xalaat dalay tànqal waxuma la ak déeyoo bàyyi ba mu lëndëm nga xam ni kenn rekk ay gis loxo ba tàllelu ci biir lëndëm nga naan allahumma ma wéet ñaanal ko yàlla yàlla sàmm ko ñu ni ko kon gënu la gënu la ndax moom la mu def yépp lu fés la lu ñu mën a wax yow nag ba nga koy ñaanal yàlla rek kon nag moo xam moom shérif lu mu bëgg yal na ko ko yàlla defal boole ci njabootam boole ci soppe yi boole ci wëllëri fa tabaarakallah ah, li mu sonn ci barab bi yal na ko yàlla faye ay gratte-ciel ci aljanna te balaa boobu yal na ko yàlla may muy ami kër di am ba ku mu bëgg dëkkal dëkkal la ci barke yent yàlla muhammad barke mawlana qutbul arifin abul abbasi ahmadu tijani sharif al fatimi radiallahu anhum nuyu nag sunu bopp waaw imaam Mouhamad Lamine Diop moom sunu bopp la waaw di ko ñaanal yàlla fa mu bëgg a moo ko xam yàlla na ko fa yàlla eggale sunu ko nuyoo nuyu nañu waa quartier bi nuyu nañu borom xam-xam yi fi teew yépp tabaarakallaahu ajjuma bi ko shérif di ubbi imaam dama doon waxtaan ci tariqa bi ba dugg ci roq boobu rekk lu tax semaine bi yépp ale ko euh, euh, samedi ngay laazim di wazifa suba ngoon ba ajjuma nga def xadratul jumaa benn yoon par semaine te yaa ngi koy déparé ci laa ilaha illallah terminé ci allah ah faf rek làmmiñ rëcc ñu ji ñu ñu poñe ñu ni nag sérif ni ajjuma la douze danañu daje pour mottali waxtaan bi fa xam nga nit boo ko dee seet jaaduwul nit di tudd yàlla jaaduwul déedéet jaaduwul du du du lu jaadu nit di tudd turu yàlla ndax sell gi yàlla sell ak ki tudd tur wi taq gi mu taq hmm? jaaduwul li tax yàlla may la ko mu dagan ba noppi boo tuddee tur wi doo seey mooy ruux bi ci yow ruux ida sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqaw lahu saajidin ruux bi rekk moo la permettre nga am sañ-sañu tudd turu yàlla te it moo la protéger ba boo tuddee yàlla doo seey bu dul woon ruux nit du mën a julli boo naan allahu bala ngay àgg ci ak barja seey maa leen ko wax ruux rek moo tax mboolem li yàlla bind du malaaka du jinne du benn mbindeef bu bokk ak nit ruux mbindeef yépp seen ruu yàlla nga ko amal ci xuduraam bi nga xam ni lu mu bëgg mu am daf ko naan kun nekkal mu nekk nit rekk la yàlla bind ba mu sotti mu ni ëf nit rek moo am loolu que moo wuutu yàlla ci fii ci kaw suuf te yàlla moom la muy gérer moo ngi koy gérer walladi xalaqa lakum maa fi ardi jamian lakum lakum la wax da maa fi l ardi jamian suuf ak li ci nekk yéen a tax ma bind ko summa stawa ila sama fa sawahunna sab'a samawat moom ma ngay gérer fële mais espace bi nit la bëgg mu nekk fi xalifaam géreel ko ko ni ko fexeel ba alxadaarat al xaybiya bi am fële di reflété fii ci kaw suuf te connexion boobu li tax nit coupure du am diggante ba yàlla ruux rek moo ko mën a assuré ruux rek mën a assuré hmm? te nee naa leen keroog ruux collaboration ak jëmmi doomu aadama yombul am na ñuy dund ba nëga ni te seen ruux collaboré ak seen naf ak seen ak seen jism seen yaram nafs bi moo collaboré moo tax ñuy noyyi waaye ruux collaboré ndax moom fa mu jóge dafa set sell leer kese la te yaram bi fi mu war a loger mooy xol bi dafa lëndëm tilim taq kañaan soxor siis rëy et cetera et cetera ruux bi ñëw ba dand la taxaw dañu ko yónni sañu la gàntu yàlla mu ñëw ba dand la taxaw naan la gaawal booy sell rek may ñëw moo tax nitu yàlla yi waxal ne la jëlal wala qad zayyana sama addunya bi masaabiha wa jaalnaha rujuman li shayatin wa aatadna lahum adab sair bi bi bi sëpp àdduna bi la gën a jege nitu yàlla yi déedéet war demee ci ci ci ci ci suyuuxul tariqati yi ko tawile mooy sama dunia mooy sa xol bi la gën a jage sa xol mooy asamaan bi la gën a jage taaral ko loo koy taarale jullee tisbar walla suba muy leer mu tàllamp ci xol bi diggante suba ba tisbar tisbar tab bi làmp tàkk tàkkusaan làmp tàkk timis làmp tàkk gee làmp tàkk boole kook nawaafil xayraat yi ngay def waaw di góorlu ci sa bopp di yar sa bakkan di dàq jukko yi neexul yàlla waaw nee bu xol bi sellee rek ruux bi ñëw loger bu ruux bi dëkkee rek connexion am sa diggante digganteeg yàlla tax yàlla dañ ko ni foo dëkk mu ni laa yasaw nii samaai wala ardi walakin yasaw nii qalbu abdil mumin sunu borom foo dëkk mu ne xajuma ci asamaan xajuma ci suuf waaye jaam bu sellal xolam ba mu leer nag ma ñëw dëkk ak moom moo tax nit tilim tilim googu nga xam ni mooy cosaanam boo gisee ñu boole koog ruux pour mu dimbalanteeg ruux def li ñuy wax taxaquk xam nga luy taxaquq jóge ci nekk përëm dem nekk jamaa taxaquq te loolu lenn rek moo ko mën moo ko mën moo di allah allah nit leer rekk moo ko mën a defar bu dul leer nit kenn mënu ko defar te leer gi mën a defar nit mooy leer gi jóge ci allah tax allahu nuuru samawati wal ard mathalu nuurihi ka mishkaat fiiha misbaax al misbaaxu fi zujaaja az zujaaja ka annaha kawkab durri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna la sharqiyatin wala garbiya yakaadu zaytuha yudii walaw lam tamsashu naar alif ñaari laam ak haagi leer googu muy dégager nuuru samawati wal ard moo leeral asamaan ak suuf kon yow mi jàppe sa muy asamaan bi nga war a taaral leeral ko boo jàppee ci tur wi rek leeru tur yu soppi la jël la ci përëm def la jama moo tax boroom xam-xam yu bare wax nañu ni moo di al moom allah mais du moom mushtaqun min al ismil aadam xaraf ñeenti xaraf yooyu dañ ko dagge dañ ko àbb ca al ismul aadam laaj naa la ko <laughs> mooy tur woo nga xam ni moom la gaa yi di wër ah na Aïcha bi muy wax yonent bi sallallahu alayhi ni ko doo ma xamal yonent bi ni ko du sa cër hmm? ah yonent bi ni ko du sa cër Aïcha ñeenti xaraf yooyu ci tur walla bokk mën nga topp ci ñeenti xaraf yi nag mu diri la ba nga dem am lii ci al ismul azam allah ñaata la 66 moo fi indi li fi ne inna iddata shuhuri inda allah ithna ashara shahran 12 12 mois du noonu mois bu ci nekk 30 12 plus 30 bis bi 24 heures la plus 24 12 plus 30 plus 24 66 moo fi indi li fi ne de li fi nekk yépp moo ko fi indi su ko defee nag lu tax ism boobu di Allah lañu soxla li ñu tax a jóg yépp mooy moom ism boobale ndax azatul aliya jëb mi yàlla kenn du jege kenn du jis kenn du laal kenn mënu ko dékku jëmmam jëmmi yàlla kenn mënu ko dékku kenn du jege kenn du laal kenn du gis lakinna zaataka la tura illa kama tandakku qurba jalaliha al man naas man akwaanu mal malau alladi fi ljawwi mal aflaaku mal arqaamu illa gubaarun taara min qutri sama wa min alsamaai min al umuuri idaamu waa jëmm ju kenn dul gis kenn du ko làmb daj te looy jariñoo ci moom lay jóge kon faaw mu am nu mu doxale azzaatul aliya lahaa rajjaat bu jaayoo jëmmam ja bu jaayoo ya muy dégagé annaat ah lahaa rajjaat wa hazzaat hazzaatul aliya bu yëngoo moom jëmmam ja ya muy dégagé ya poussière baag ya muy jur lun jaam yi mos ca loolu la jóge la muy dégagé moom jëmmam ja lu jaam yi mos ca loolu la jógee mais du ñëpp ko attan du ñëpp ko attan caaxaan baaxul de la la jëmmam jay dégagé du ñëpp ko mën a recevoir ba mën ci seddu bay seddalee ku deful taxaquq mënoo ko te samaam yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah wa kaana muxtajiban min qablu fi xujubin yusabixu llaha fiha gayra mubtasimi waajal waajal loola taxoon kullu xijaabin aqaama albadru min xuqubin fiihi bi taati mawlana bila saami Cheikh Cheikh El Hadj Malick bokkul ci làmb ji de kenn seenul pëndam maa la ko wax kenn seenul pëndam kenn xamul fu mu jaar hmm? làmb doo xëy rek ub ko yéen a wax waaw hmm? ci sallallahu alayhi wa sallam wa kaana muxtajiban min qablu fi xujubin yusabixu llaha fiha xayra muttasimi ak kullu xijaabin aqaama albadru min xuqubun fiihi li taati mawlaana bila saami muttasimi ak bila saami bii pour am résistance la bii pour am endurance la fa lañ doon préparer ruux yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moo dox diggante li jëmmi yàllay dégage yonent bi rek moo ko moo fa qudratun minnatun min qabliha idamun wa rahmatun wa saadatun li muslimi karamatun baadaha fil addi manzilatun hidayatun wa nubuwatun fala tahimi wa rifatun taatu lmawla shafaatuhu fiha tamamu iza tartibi fahtakimi foofu la jaar ñu yóbbu ko mu defi stage nag mu defi stage ci waqaatiun abxuran yaa an biha sabaqa aljamia min nadratin walxubbi warrahmi sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom waaye kenn du Cheikh Alhaji Malick si fa la tàmbalee rek sallallahu alayhi wa sallam pour mën a recevoir liy jóge ci hazaat ak rajaat yu jóge ci azaatul aliyati moo tax mu ni maag yàlla yéen maag yéena ko defee nag taxaquq lañ la sant yow taalibi taxaquq mooy nga fexe ba soppi sa euh, euh, përëm mu nekk jamaa te loolu leer yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko mën ndax ñu ñëw jox la sa laazim ma bàyyi leen ma sax ma ñëw rek indi ko ci wazifa ndax siixa wazifa ëmb na yépp astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum ñaata yoon 30 fan weer yi fan weer wi yi nga toog yépp dugg ñaari yoon par bés lu mu firi astaghfirullah lu mu firi ci alxaaj omar radiallahu anhu taajul arifina nee na astaghfirullah li mu firi mooy yàlla maa ngi lay ñaan nga sàng ma malaanum sutura ba bàkkaar yi ma def te duma rekk jekk ci nga sàng ma sutura ba dooma duma yàlla maa ngi lay ñaan bakkaar yi ma defagul te su ma ko defee duma jekk ci man nga sàng ma mbalaanam sutura ba duma ko def nee na loolu mooy astaghfirullah astaghfiru lu tax waxoo rahman allah nga wax jàppal foofu yàlla la tax a jóg al azim bu nekkul woon azim kenn du xej ci moom kon jàmm yépp xaj nañu ci moom moom moo xajul ci kenn ndax azamaam wa rahmatullahi kulla xalqi qad wasiat min fajirin wa mutiin zahir kon azim bi moo xajoo ñëpp mais xajul ci kenn ku xajul ci kenn nag te ñëpp xaj ci yow ngay sol sa manto yërmande waaw sol sa manto yërmande alladi laa ilaha illa huwa xanaa tawxid ñëw na ah nee na man associé associé wu ma ak kenn ndax kii associé dafa tële moo tax muy wut ku mu booleel force am pour réaliser dara ana agna shuraka an shirk nga ne man associé wu ak kenn ndax ma mën ba ku mën maa la maa la may nga mën moo tax nga dégager ñëpp ñu ko laa ilaha illa huwa alxayu kuy dund du dee sa mën-mën barewul Hmm? ku dee moom mënatoo dara kon alxayu huwa alxayu qabla kulli xayin wa huwa alxayu baada kulli xayin wa huwa alxayu lam yaris alxayaata min xay hmm? ku dund ku mel ni moom moom la ñuy joy soxla yi mu jëm ci moom bala nga naan naam ne fa yaa ngay waajal sa bopp de pour jële sa bopp ci përëm nekk jamaa waaye nangu nga ni da nga yi danga nga tilim ci tooñ yàlla nga dëkk waaye wax nga yàlla ci njëlbéen ni ko maa xaj ci yow mais xajoo ci man astaghfirullah al azim loo cay teg salaatul fatih allahumma lu muy firi Seydina Cheikh radiallahu anhu nee na bu ko arab waxee bu ko arab bu waxee allahumma mooy yàlla gaawe ma ba ma seetaanee ma alku allahumma boo ko boolee muy 106 boo ko déchiffré yéen ñi calculer gaaw leen laam 30 la ñaari laam yi ñaata soixante mim quarante cent hmm? cent gi di cinq alif gi di un cent six asmaullahi alxusna ñaata la quatre-vingt-dix-neuf al asma an nazila mais al asma al quatre-vingt-dix-neuf moo wàcc mais sept yu wàccul boo ko boolee ci quatre-vingt-dix-neuf sept plus quatre-vingt-dix-neuf cent six juróom-ñaar yu wàccul moom la sallallahu alayhi wa sallam doon ubbee asamaan yi juróom ñaari yi keroog bi muy dem ca invitation ba asamaan bu ne benn code ci yi la ko ubbee moom la sa maam Seydina Cheikh radiyallahu anhu Serigne Cheikh di ko ndokkee naan ko bu dul woon ak yow lawlaaka ma daharat lana asma'uhu ramzan li kulli xaqiqatin wa kiyaami waaw mu xaw a jëfur sax ba junj ko baa un tasiiru tanaqulan wa bi sayriha wala da xutuuta mushayidil bunyaani maa nuqtatu tawxiidi qablu bi ushiha maa bastatu lxati lmadidi saani طويت بتوراة الكليم ووريت بمكامن الإنجيل للرهباني أه؟ أه؟ فأتى بها السبع المثاني أسهما بحروفها حفظا للسبع المثاني ci faatixatul kitaab set yooyu moo téye yi fi ne moo fi indi li fi ne ku ko xam rek foofu nga ko xamee ci invitation yooyu la waaye sunu sëriñ nag Mawlana Qutbul Arifin Abul Abbas yi Ahmadu Tijani juróom-ñaar yëpp moom lañ ko teg ci loxoom ku ca ñam rek moo la mosal moo tax lawlaaka ma daharat lana asma'uhu hmm? ah bu defee nag allahumma nga poñe yàlla ci quatre-vingt-dix-neuf yi ak set yi wàcc doonte xamoo ko sa yoon nekku ci cheikh dugalal na la ko ci biir allahumma boo nee rek woo nga yàlla ci cent six tur yëpp mu lay déglu ba xam Aline Badara Ndoye ni mu bëgg ceeb mbaa du ceeb la may ñaan ba dara Gueye ni mu bëggee euh, laax mbaa du laax la may ñaan nga njuuy ko moom yàlla ni ko salli joxoñol ko jëmm ju tedd ja sallallahu alayhi wa ni ko kële la bëgg xéewal goo am nga wàccee ko ci kawam ah salli yàlla di la déglu nga ni ko ala sayidina moo tax léeg-léeg nga dégg gis taalibi tijaani wa allahumma salli ala saydi kenn du wax saydi da ngay zikkar ba sonn du la charge sayidina siin ñaata la trois cent calculer leen yaa dix trois cent dix daal quatre ah nuun cinquante trois cent alif un trois cent cinq nombre jour at mi ñaata la 365 jours taalibe tijaan bu ne boo ne allahumma salli ala sayyidina ñu garanti sa 365 jours te dundaguloo ko ñaata salaatul faatihi ngay jàng par bés ñun xamuñu sax lañ ñu jox ñaata salaatul faatihi ngay jàng par bés sayyidina boo wax rek 365 taxaw na ba demee ci naar yi salli ala muhammad ma ni leen tuug salli ala muhammad di ko sàllalu bàyyi ngeen xéwal gu rëy moo tax ki ki ñu yar forme la nga tiim salaatul fatiha texte bi di ko diingat ma ni xañ nga sa bopp yiwu àddina ak àllaaxira jàngal benn salaatul fatiha rek mu garanti sa dund yépp yàlla di la déglu nga yaakaar ni keneen ngay wax sa sëriñ ngay wax wala keneen nga ne ko muhammadin laa wax waxuma sama sëriñ waxuma sama baay muhammadin laa wax kooku nga xam ni li fi ne mooma miim xaa maxallaahu bihil kufra miim deel wa madd bihil imaan gaa dañuy gàmm de tey <laughs> barakallahu fiikum waaw moom sunu soppe la Mouhamad Diop doomu imaam Mouhamad Lamine Diop mhm. mooma da mhm. jërëjëf waay jazakumullahu xayran salaatul faatixi bi foofu laa koy pose ba beneen ci sa yii dinaa gi mais 365 jours yooyu ñu ngi ko defaat ci jawharatul kamal waaye comme boo jege ci salaatul faatixi bi ci yonent bi ci yàlla ngay jëm la ilaha illa allah lu mu firi laa ilaha illallah dafa am njalbeen am digg am fin bidaaya bi laa ilaha illallah laa maabuda siwallah sama kàttan gi sama rot gi sama sujjóot gi yéenewu ko kenn ndax kenn mérité wu ko kenn yayow ko kudul yàlla re ba ci digg bi yaram bi tàng nga naan laa maqsuuda illallah moom lay moom lay firi sama soxla sama yaakaar yaakaaruma ci kenn ku dul yàlla ndax kenn newu fi koo yaakaar ku dul yàlla rek danga ko yërëm bés kon kenn newu fi laa maxfuuda illa allah nga dem ba ca fin ba nag sa vitesse yépp jeex laa mahbuuba illa allah xol bi kenn newatu fi ku dul yàlla xanaa kon léegi nag war nga dugg nag ci taxaquq nag set nga wecc shirk dàqu lépp dàqu amato bokkaale amatoo lenn léegi nag sóobu ci yàlla rek moo fi des dem ci taxaquq hmm? taxaquq ñaata xaraf la ta xaa ak ñaari xaaf muy ñeent hmm? taalluq ñeenti xaraf la muy ñeent moom itam ñeent ak ñeent juróom-ñett taxalluq ñeenti xaraf la juróom ñett plus ñeent hmm? fukk ak ñaar très bien muy douze su mës na tey asharata fi lkamali taqra'u min jawharati lkamali <laughs> nee na tey la douze pare bu ma de taxa sallallahu alayhi bu ci ne mu teg ci ñeenti baat jël taalluq mu ni la ittaqi allaha xaysuma kunta muy ñeent taxaquq mu ni la atbii alsayiata alxasanata tamxuha muy ñeent pilis ñeent muy ñaata huit taxalluq mu ni la xaaliqi annaasa bi xuluqin xasanin huit plus quatre douze douze yi baat yi ak douze yi cosaan yi muy ñaata vingt quatre douze jawhara suba douze jawhara ngoon ci alxaaji Mali bokk ci ku mu mënul defar doo sotti moom jawharatul kamal lu tax yenent bi ngay bàkk dafa def taxaquq waate muy nekk yaaquuta mu taxaqiqa la waa kon dafa def taxaquq waaw salli ala saajidin qabla al wara faala ba bi mu gënee àdduna lu mu def yëkkati teen xool asamaan banque baaraam yi yëkkati benn jalaala rabbin rafiin lu Maodo wax وسلم أي وجزيا أبدا في الخدم جلال رب رفيع خلقنا أتى خيل صباح في تكبير ذا العسمي أبدا يا إلهي وجديا أبدا أن محمدنا المختار في القدم كن ما زال متحققا دفنا التحقق تعالم الأرواح gane àdduna ni liir yi def ni uwee moom mu ni jalaala rabbin rafiin am ñu ni dafa ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar ci liir hmm? bawu ko bawu ko bawu ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin yàlla ni ko bu mu dakk jaamu ma ba keroog ñu lay dugal ci cimetière ci ci euh, ci bàmmeel bi bawagul de mi ngi ci bàmmeelam di julli ndax moo ni yonent yépp ñu ngi seen bàmmeel di jaamu yàlla te mooy sangu yonent ba wagul de yonent yëpp seen jaamu dana jeex moom keroog yowmal qiyaamati ca dillal arsh sallallahu alayhi wa sallam ah acte bu mujj ba fa la koy defe mooy sujjóot sant yàlla bàkk yàlla kañ yàlla yàlla xool ko yëngatu gësamu bég yàlla ni ko ci yow laay sukkandiku tey dootuma xool nu kenn mel yow laay xool yow lay xoolee ñëpp foofu lañ ko jox almaqaamul mahmud yàlla ni ko tey koo ma ni baal li alhamdulillahi rabbil alamin moo di almaqaamul mahmud ah aqimi salaata duluki shams ila gasaqi layl ila gasaqi layl wa quran alfajri inna quran alfajri kaana mashhuda bu ñëpp nelawee jógal wa min alleyli fatahajjat bihi naafilatan laka asaa an yabaasaka rabbuka maqaaman mahmuuda salawaatullahi wa salaamu alayhi loolu nga tàmbalee ko samedi dimanche altine talaata àllarba alxamis ba ajjuma lépp yaa ngay mocc azat al aliya yaa ngay mocc azat al aliyati da nga koy waajal ya jëmm ja dégagé te mënoo songu boo koy songu di seey nga di ko waajal ñu lay entraîner nga di ko waajal ajjuma tàkkusaan ajjuma ñu ni la booy tëb dal ci allah gi rek di sey moo tax boo gisee ba ci silsila Maoda boo dee def yow dong lazim laa ilaha illallah bi mooy ëpp lim ñu la def ko mille allah ji nga barkeelu ci ndax kattan gee bare def ko six cent su dee mbooloo it li ñu bëgg mooy ngeen wax laa ilaha illallah lu ëpp allah ja ngeen barkee lu ca ndax loo ca am doy na sëkk nga tàmbale nag laa ilaha illallah sëñ Babacar si nee na laa ilaha illallah xuloo la xuloo la waaw ñu ngi lay waajal di la entraîner semaine bi yëpp kenn la tax a jóg moo di yàlla sunu borom nga tàmbale laa ilaha amul kenn ku ku ku ku ñuy jaamu nga yewee jaamu ba ku dul yàlla kooku xuloo la yaa ngay nekk bayna nafi wal isbaat di dàq di saxal kooku xuloo la ni waaye boo yeggee nag xuloo nekkatu fa allah allah ja rek fekk nañu ñu waajal la ba sa ruux bu tuddee allah du seey semaine bi yépp waaw leeru istixfaar salaatu fatixi la ilaha illa allah jawharatul ba tàkkusaanu ajjuma nag point de départ la woon fële tey nag war nga arrivé nag ca góor gu mag ga moo tax laa ilaha illa allah laa maabuda illa nga dem ba sa yaram tàng laa maqsuuda illa allah shérif koy koy bàkk koy kañ nga ni ku fi ne ku dul yàlla yàlla rek a fi ne dem ba ba yaram wi tàng jër shérif looy def mu ni laa mahbuba illa allah xol bi kenn toogatu si ku yàlla léegi nag keneen newatu fi gisatoo yow sax nekkatoo fi allah allah allah allah allah allah allah allah moo fi indi li fi ne ah al miraaj ruuxi yaa nga tàmbale woon sa nuqtatul bidaaya ci baabu bismillahi rahmani rahim moo tax booy julli daggu ko rek wàcce nga wàcc nga loo xam ni escalier bi la war a yéegee doo ko yóbbu doo ca yéeg waaw bismillahi rahmani rahim bu leen ko bàyyi mukk ci seen julli tomb baa mooy fi nga teg sa tànk escalier bi war la yéegee ajjuma ci ngoon nga ferenklaa yi ci tomb nuunu alhamdulillahi rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa man maak bi jaay seydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ah, déy na ma léegi mu ne ma jéggalul ma mbooloo mi ne leen dama daanoo ma ne ko waaye yal na sax te ñëpp yal na ñuy daanoo nii ndax yonent bi rek a fi ne gis nga mag ñu baax ñi fi nekk ñëpp kuñ raw fa lañ la rawee amul benn jaaruwaay ak wéyuwaay bu dul rasulullah amul amul muy maam borom Touba muy Cheikh na Cheikh Sadbu Cheikh Seyd Abdul Qadir Jeylaani koo fi gis rasulullahi kese dinaa koy wax maam borom Tuubaa nee na dundam yépp ñaar la ko xaaj six mois yu njëkk yi alxuraan rek lay jàng six mois yi ci des yonent bi rek lay julli jeex na dundam yépp nii la ko doxale ñun ñépp nañ jël suñ nos gii jox ko yonent bi ndax yeggi wuñ ci yàlla mooy li Alaaji Abdou Aziz wax li yonent bi ne ana min allahi wal muminuuna min nii man rek maa am accès ci yàlla yéen ñi ci des yépp ci man ngeen yem loolu keneen ku ko waxoon ku du rasulullahi doo ko fekke moom lañ doon waxtaanee dimanche ci conférence u ci am xaqiqatul muhammadiya lu dul yonent bi newu fi mag ñi nag bañ xamee ne yonent bee fi ne ñi daw jëm ca moom noppalu jël seen njaboot yëpp tuddee ko sëñ Modou Moustapha kuñ ko tuddee ko dul yonent bi Mouhamadul Fadel kuñ ko tuddee ko dul yonent bi Abdul Ahad kuñ ko tuddee ko dul yonent bi Cheikh Abdul Khader kuñ ko tuddee ko dul yonent bi nga ñëw ci Seydi Hadji njobootam njabootam yëpp yonent bi la leen tuddee sëñ Sidi Ahmed Seydi Aboubacar mooy yonent bi ah ummu xayri mooy yonent bi fatima mooy yonent bi alaaji abdul aziz abdul aziz mooy yonent bi ah habib mooy yonent bi mansour mooy yonent bi mag ñi jël seen yépp jox yonent bi boole di tagg yonent bi ñun nag ñu bëgg rekk li sëriñ Babacar si doon wax ne xay lay cëpp ne yàlla maa ngi mu ne man Babacar ne weddiwuma ne mën naa nekk ndax innahu ala kulli shay'in qadir mu ne yàlla nu ne mën na ko mu ne waaye ku ko ci def doo ko nettali dañ la koy nettalil mu ne dangay ngay téye ci góor góor téye ci góor góor téye ci góor ba ci rasulullah moom mooy téye ca suñ borom nag loolu ku ko weddi doo jullit waaw te li sëñ Abdou doon wax jërëjëf sëñ Abdou damay def rek eh, xam nga léeg boo déggoo déggoo ma naan ko wolof ndax arabiya bi léeg damay bëgg jigéen ñi ak ñenn ñi dégg li muy wax ay léeg moo tax ma naan eh, xam nga moom daa tàmm arabiya bi nga xam ne bu ne xaqiqi xaq taxaquq rek ma ne ko wolof ndax gaa yi xam luy taxaquq loolu rek laa ci jublu ndax comme ay ajam ñoo fi nekk eh, ma bëgg wax ji pir pirse ci seen biir xol yi ndax wax am na fu muy yegg ci nit rek jeex na nit ki bénéficié wu na ila yawmil qiyaamati waaw li nga doon mooy danga koy dëggal ci sa bopp dund ko nag di ko def ni xar yi di def di duñ yi xam nga xar day duññi duññi mooy bu yendoo lekk ba bi so mu dem tëdd ca udd ba wala ca gédd la nga gis muy sàqami lam lekkoon ca bëccëg moom lay duññi bu lekkoon màngo ba war na xoox ba sax da koy duñ di ko yëy di ko yëy ba nga gis mu yàbbi xoox bi xam ne bokk ci ndem xar moo am boobu intelligence waaye waaye ñu kon nit num mu war a mel loo fay xalaat ko ba ngoon xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu regleel sa bopp balaa la yàlla di regle ëllëg ñu nuyu kilifa yi door a yegg si alxaaji Moussa Daaf ak freeram bu baax bi di suñu njaatige di bay di ñu ngi leen di ziyaar ak euh, kële du américain waaw kañ Maxtar Diouf ak sama ñaari italien yi euh, Massayer ak Dame Thierno Papa Tall ñu ngi koy ziyaara jógal taxaw Seydi Ismaïla waaw kii nag mooy wëli yu pentiir kii moom wëli yu la ci pentiir lii ngeen di gis yépp ak li ci biti waxuma ne kenn du ko def Sénégal de waaye moom laa xam ku koy def ak naar yi ko daan def te moom muy greffier ñu bari sax tur bi ci moom lañ koy déggee yim ci xam da bu toogee di la ko wax day mel ni kuy tafsir Fatiha bañ na ko ba def ci bëgg ubbi école pour jàngal jeunesse su bi métier incha allah maak moom ñu ngi ciy waxtaan. ci entreprise bi ñu bëgg a taxawal nga xam ne ji ñuy ubbiwaale benn école boo xam ne eh, xale yi di jàng toll ci jàng métier te seen njàngum école yàqu na ñu dugg orienté wu dugg ci métier bi fa tabarakallahu loolu tamit du ñëpp ñoo am intelligence su dem école ba yegg ca cëppandaw la euh, wecc métier nit ki daf ko war a am moo tax sëñ Babacar si waxoon ne junniy métier lu mu ko waxee doy na son bàyyi sono ndax maam aadama alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla wàccee ci kaw suuf junniy métier la ko joxoon mu jàngal ko doomam yi ak sëtam yi métier boo fi gis rek maam aadama amoon na ko kon nit dafa war a am métier kon la ñu ngi koy sant bu baax na ko ñëpp xàmmee eh, démb maa ngi tooñ alin Sall ma ne ko danga may piratal yow ci piratal mu nga rek nga dëkk muy rey moo ko waaw wa allama aadama asma wa allamal aadama asmaa kullaha summa aradahum ala almalaikati fa qaala anbi'uuni bi asmaai haulaai in kuntum saadiqin métier yooye nag yii ci la bokkoon bismillah toogal ismail waaw muy ku baax Mauritanie la nekk nag moom soxnaa mag njabootam yëpp ñu nga fa maa tax mu ñëw fi mu ne nii Sénégal pour liggéeyal ma ak yenn liggéey yi fi am pour defar ko fa tabarakallahu muy ku ku ku ku baax nag fa tabarakallahu ku jub li gën a jafe jub man dama bëgg nag société bi ku ci dugg nga jub ku jub ku jubut dinaa la dàq premier diplôme ak loo mën a indi ci diplôme mooy jub boo jubut billaahi bu ma la juróon dinaa la dàq ku ci jubut bu ma la juróon danaa la dàq boo ci luubalee dinaa la dugal ci yoon dinaa la yóbbu ci yoon ak koo mën a doon te loolu ñi ma wër ñëpp xam nañ ko am na fi ñoo xam ne jege nañ ma defoon lux mbóor bañ leen yóbboo dama ne na yar bi dal wallahi dama ne na yar bi dal ñi ci war a fay ma ne leen nañ fay parce que nit boo ko bëggee dimbale danga koy jubloo da koy jubloo mënoo lekkaale li jàmbur ba pare tëdd fa leen di jaaxan di gundaandaat du fi amee du fi amee ñun ñëpp nañ jub kon bi ci des nag moo di jërëjëf sëñ Abdou maa ngi koy wax barki démb ku bëgg a dem ci yàlla xam nga nooy def foofu lay joxe imaam Lamine da ngay juutal faatiha faatiha ngay juutal soo ko juutalee rek yegg ci yàlla waaye boo tàmbalee ci kaw yàlla rëkk sa ndigg parce que faatiha li tax nga di ko jàng bër bu set ci julli gu nekk ak naafi la yàlla dafa bëgg nga yegg ci moom waaye doo ko jàngee ci ko wàcc ci suuf kooku booy julli la boo jullee ba noppi nag yàlla ngi lay seet nooy def ak moom mooy da ngay wëlbati faatiha bi pour mën a yeggaat ci yàlla nag boo ko jàngee bismillahi rahman li sëñ Abdou waxoon li sëñ Abdou di wax ni bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin baa boobu tomb baa bi fa ngay tàmbalee waay fa ngay mujjee bi fa ngay tàmbalee waaye fa ngay xam nga lu tax bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin li sëñ Abdou wax xaqiqatul muhammadiya yàlla ba mu ko bindee jëmm ja benn benn benn benn leer yeggu benn benn jëmm yonent yi li ñuy bari bari bari doole seen diggante leeru xaqiqatul muhammadiya juróom-ñaari leer juróom-ñaari géeji leer dox na fa boo xam ne jëmm ji day frappé ci benn leer frappé waat ci benn leer ba ci juróom-ñaareeli leer bi ci la yonent yi di taataanee jëmm jëmm jenn jëmm ji nag rasulullahi rek a fa yegg bi yàlla xoolee jëmm ji bi mu ko bindee dafa ñaq ñaq boobu moo def duusu géej duusu géej boobu ci la yàlla puurit miy dóor ci la yàlla bind asamaan la desoon ci géej gi nag muy ndàmba boo ko doon di jàng tey da naan mooy tiga dege mu mel ni tiga dege fii kaaba gi posé wu tey foofu la posé wu woon moom la yàlla tas def ko juróom-ñaari suuf boo bëggee yegg ci yàlla nag dangay juutal faatiha boo jógee ci jàkka ja Moussa alaaji Moussa Baan <laughs> alaaji Yuusu Jàllo boo génnee ci jàkk ji dangay juutal faatiha alaaji Sàmba Xari yaag yaag alaaji Usmaan ak si xam nga nooy def pour yàlla xam ne li nga doon wax ci jàkk ji dëgg la lu mujj du wala daalina moo mujj foofu ngay tàmbalee boo génnee ci jàkk ji rek li des ci waxtu yi ci des yépp diggante bi fexeel ba bu la yàlla mere sa pexe na bu mu doon mukk yàlla mere la ci diggante bi bul def lu la yàlla di mere mooy wala daalina lu ci lu jiitu lu ci toppaat ci wala daalina xayril maxduubi waaw alayhim moo ci mujj moo ci topp walla alayhim wala daalin alayhim nga ciy teg mooy ñi nga seqal géew bi mooy ñi nga seqal àddina fexeel ba bul jaar ci kenn ba yàlla mere la alayhim bul fexe tooñ alaaji bàcc ba yàlla mere la ci bul jëw ba yàlla jéppi la ci bul sàcc alalu jàmbur bi yàlla jéppi la ci lii yàlla bind muy mbindeef yi nga bokk kook ñoom fexeel ba bu ci yàlla jaar mere la mooy alayhim lu ci topp ah déedéet da ngay yëg xayril maxdo bi waaw fexeel nag ba merum yàlla moom bu ko ut mooy xayril maxdo bi fexeel ba bu la yàlla mere yaa xam nag nooy def ba bu la yàlla mere waaye fexeel ba bu la yàlla mere xam nga nooy def parce que alkaati bii nga nekkal commissariat bii ci sa wet bër bu set yaa ngi fexee lu la musal ba doo duñ la convoqué commissariat wala déet waaw ni ngay fexee di mucc nag ci commissariat bi yàlla ngee commissariat bu ko gën a garaaw boo xam ne moo ànd ak yow kon fexeel ba bu la yàlla rëbb mukk bu la yàlla mere yaa xam nag nooy def ba bu la yàlla mere waaye fexeel mukk be bul sóob sa loxo ci lu yàlla di mere lu ci top an amta an amta alayhim fexeel xéewal gi yàlla def ci yow inna sababna al maa sabban summa saqaqna al arda saqan oustaz Malick Guèye ca Thiès moo daan wax ne yàlla su amoon beneen tur taam lay tudd ma ne ko lu tax mu ne dafa ne fal yanzuril insaanu ila taamihi teg ca inna sabab nal maa mu ne nit na xool li muy lekk teg ca ne man yàlla mu ne kon lekk gi ngay lekk boo yégee ne yàlla la koy layal ci ngay suur bu ci yàlla génnee kàttanam doo suurati mukk wala déet ah, kañ foofu duñ ci yàgg kon an amta alayhim xéewal gi yàlla def ci yow ba ca jiitu ñun ñi di ko fàtte te alaaji bu saaxu daan ci insister daf daan wax ni ñun bu ñuy sant yàlla rek day fekk suñ poos am xaalis day fekk suñ yaram wér mu ne waaye am na cant goo xam ne dañ koy fàtte daa iman mooy sant yàlla ci def bim la def ngay jullit sant yàlla ci xéewalam bim la def ngay jullit mu ne dañ koy fàtte moo ëpp xaalis moo ëpp wér moo ëpp lépp waaw boo santee yàlla ci xéewal gim la defal ba noppi nag an'amta alayhim nga sant ci yàlla xéewal gim jaarale ci mbindeef fii ba mu si ci yow ndax yàlla tàllalul asamaan ne la am dafa xiir alaaji yusu jàlloo xiir Amadou géey ne ko joxal leen ma imaam Lamine Diop ak Chérif Ibrahima nangam ñu ñëw ne imaam maa la siyaaree lii ne ko jërëjëf an amta alayhim sant yàlla ci xéewal gim la defal ndax yàlla ne ku ma sant ma dolli la nga yëg xéewal gi yàlla def ci yow nga sant ko xéewal gim jaarale ci mbindeef yi ñu jox la ko nga sant ko ci sant yi ci nit ñi bu ci topp siraatal lërina nga fexe nag benn coow ci yoon wi nag ndax ku ñuy gàttandu da ngay jaar fu leer jóob ñaga moo daan wax ne tànk buñ koy topp danga koy teg fu leer sëñ Touba sëñ Fàllu Mbàkke wax naa ko keroog dimanche Alaaji Abdu nee na dafa ragaloon cet su mosaan di tukki bu génnee dëkk bi rek danaan gaareel chauffeur bi chauffeur bi taxawal taxawal ba xaat egg bu taxawee lu pat ñaar fukki minit ne ko départal mu ne fi mu dépare rek am ku koy xëyu xëyu mooy di ko arrêté sëñ Fàllu ne chauffeur bi taxawal kii day xëyoom gi metti na lool taxawal mu taxaw mu ne ko man de ci dëkk sàngam bii rek laa jëmoon bëgg nga yóbbaale ma xam nga al arabu ashadu kufran wa nifaqan ñoom xàmmee wuñ kilifa sëñ Fallou ci lewet gi mu ne chauffeur bi ubbil ko wax ko mu dugg mu ubbi dugg geesu ne yem ci sëñ Fallou ne ko i eh, Mbàkke Balla Aysa nii rek boo lëgee bés bañ ci maag yow nii nga may defal ba àjjana mu ne ko ci kaw naa la fekk ci kaw xàll wi rek ndax bu ma la fekkoon ca ñal la wa duma la yóbbaale waaye ci xàll wi laa la fekk su ëllëgee it bu ma la fekkee ca xàll wa yóbbaale la xam nga ñii naxuñ kenn ku bëgg a sanku nag yaa sank sa bopp ku bëgg réer yaa réeral sa bopp ah siraat alladina kon loo mën a def ci àddina jaaral ci yoon wi rek soo jaaree ci yoon wi rek kenn ku lay dabit ci njub la lay fekk wala tatabiu sub euh, la subula fatafarraqa bikum an sabili ñal yi boo ci jaaree moom buñ la pesee yow la bu la agresseur dabee yow la waaye xàll avoni wu ne dang dangaral ami làmp duñ fa agressé kenn te mooy siraat mooy yoon wi ne coow jëm ci yàlla bu ci topp doo ko ñaan nag bu boobaa da ngay def ittey lu tax nga jub waaye toog naan yàlla yàlla na nga ma jubal du la jubal mukk dangay ngay def itte ju tax nga jub luñ la dënk xamal ne moomoo ko luñ la may yaa ko moom waaye mos la ca loo ñaq yaa ko moom waaye am nga ñoo ko bokkal famille baa ngi fi ah nga yëg ne du yow kenn waaye am na ñoo seqal géew bi mooy ba ba ban la iyaaka naabudu bu ci topp waaw kañ bu ma génn léegi waaw kañ boo jubee ba noppi nag dangay ngay jéem a sax ci njub gi looloo tax nag nga dëkkee ne yàlla yow rek lay jaamu jaamu yàlla nag boo génnee ca jàkka ja allahu akbar asalaamaaleykum yàlla ngi lay xaar ci jaamam yi nga jaamu yàlla ci biir jaamam yi kii am na ordonnance ñëw na déey la ko mën nga koo jënd jëndal ko ko te bu kenn yëg kii déy na la dépense bu mu amul loxo ndeyjoor bi bi mu koy joxe bu ko càmmoñ bi yëg kii génnee nañ ko luyaas am nga loo ko fayale fayal ko te yàlla tax bu ëllëgee bu mu la romb ci mbedd problème sociaux jàpp ko mu fàtte laa nuyu nga ne barki démb de pourtant mu ngi may romb nii de waaye barki démb maa ko fayal courant bi wala tubdilu sadaqaatikum bil manni wal adaa kallazi yunfiqu yunfiqu maalahu ri'a annaas wala yuminu billahi wala bil yawmil bu ci topp maaliki yow mi diini nga yëg ne nag benn buur fi nekk bu mën a régler sa problème mooy suñ boromi bi subhanahu waaye ci biir ni ngay jëflanteeg jaamam yi nag mooy xiir jaamam yi ñu di leen régleel say problème dégg nga wax bi ni nga mel ci jaamam yi noonu lay bàyyee jaamam yi ñu di la régleel seeni problème damay wax ne ñaata nit a fi dem Makka te seen doom yóbbuwu leen premier ci man su ma doon xaar doom bu ma yóbbu Makka dinaa dem waaw dinaa dem mooy xëy na dana yéex du dëgg 2004 ba ma Jibril Bodian di yóbbu ma ànd ak Khalifa Diallo alaaji Khalifa Diallo bi ak waa douane booba samay doom mënuñ dal du dëgg kon ñaata doomu aadama ñoo fiy jëriñ tey tey ay doomi jàmbur dong nga leen di jëriñ waaye du seeni doom wala déet ak ñi amul doom sax tey jëriñu kon naa iyyaka na'budu loolu lay firi jaamul yàlla yëgal ne yàlla rekk a fi ne waaye soo joxee yàlla lim moom ay xiir jaamam yi ñu di la teral mooy iyaaka naabudu lu ci topp arrahmaani moo ci topp arrahim moo ci topp xam nga léeg-léeg nga dégg ku ne bismillahi rahmaani rahim mooy maa ngi tudd buur bi nga xam ne yërmandeem ji moo ko yërëmee ñëpp fii ci àddina arrahimi mu xar ko ëllëg ngir àllaaxira dëgg la waaye kon rahim dafa mel ni àllaaxira rek lay dox ah rahim mu ngi dox fii waaw danga naan arrahmaani buur bi yërëm mbindeef yépp arrahimi ki sax dàkk di yërëm mbindeefam yi ëllëg boo ëllëgee lay sax dàkk waaye fii daf ci able mooy tax yërmandem jooju mooy tax léegi nga ne cocc boo ëllëgee nga feebar bañ lay jagat jagati wala déet bu tayee nga am bay maye bu subaa nga ñàkk bañ lay may wala de tey nga ne jot na ëllëg ñu ne deena loolu yëpp ci rahmaan ji la waaye fa muy saxee dàkk nag mooy tudd rahim mooy arrahim arrahman nga fexe nag ba incarné ko nga mel ni doom ju téye ndeyam ndey ju doomam di ko nampal bët yam koy xool du bët yërmande ci yërmande yàlla ji lañ ko xare soo bëggoon ñëw jam doom ji paaka nu muy def ak yow lu mu néew néew doole dana ko jëflanteek yow balaa ngaa jot ci doomam dina ko jëflanteek yow noonu ndey di amee yërmande ci doom bi muy nampal amee ko yërmande ci jaami yàlla yi irhamu man fil ard ko man fi sama nga yërëm ñila la suuf ndax ñi la féetee kaw man laa yërëm bu boobaa arrahmaani rahim da nga koy incarné di dox mooy koo gis amal ci moom yërmande jaami yàlla yi nga yëg ne bindoo leen yàlla leen bind la la war ci ñoom rek def ko jeex na lu ci topp boo defee yooyu yëpp nag saña toog ci ferenkulaay yi nag ci sa sajaada wala ci sa piliyaan jaaxaan ne alhamdulillahi rabbil alamina yegsi na ñi ngay juutalee fatiha pour yegg ci yàlla kon nag ñu ngi jël kàddu gi jox ko imam Mouhamad Lamine Diop am na 30 minutes nag incha allahu ñu reer